dal leen ak jàmm Ousmane Sonko ak waajam bi di Jean-Luc Mélenchon promoteur góor jigéen ca France moom ñu ngi yoon fële ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu doon waxtaanee ay thèmes yu bëri ni affaire homosexualité affaire góor jigéen sama naataango dellu nag bu baax a baax ci wàlluwule ñu laaj sama naataango yi yow waaw Ousmane Sonko ak Jean-Luc Mélenchon lan lañ doon waxtaanee foofu sama naataango bii di journal Le Quotidien ne lañ ko wax moom bii di Jean-Luc Mélenchon daanaka démb danoon def lu ñuy woowee promotion góor jigéen ba kii di Ousmane Sonko nekk waaw xam nga yow sama ay damaa bëggoon nga jàppale rek bàyyi góor jigéen nekk seen oola la Sénégal loolu laa bëgg jàpp ci rek parce que man yàgg naa défendre seen droit loolu du dara sama naataango joxaat parole nag kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne ah suñu société mënagul loolu imposition moom mënoo leen ñu imposer loolu yokku ne a mu toll ni ñun bàyyi leen ñu gérer góor jigéen amul problème Sénégal sama naataango bi di journal Le bi mu déggee lu numéro bi ne ah kii Ousmane Sonko la du Ousmane Sonko tey wax jii nii di layam layam leerul boo ko comparé ak Macky Sall discours bi des na des na bu baax a baax ndaxte ku nekk gis na bi Obama ñëwee fii Macky Sall lu ma waxoon lan la ñu laaj sama naataango lan la waxoon mu ne moom kii bi Obama bi mu ñëwee fii wax Macky Sall nañ nañ may ju góor jigéen ñi affaire Sénégal kii di Macky Sall dafa leerul dafa waxoon jamais dafa woon jamais de la vie du ko def tàng nee ne waa tey yi man su ma jëlee discours Ousmane Sonko bi des na dëgër bu baax a baax moom daanaka dafa ne bàyyil Niger donc boo comparé ñaari des na bu baax a baax sama naataango bii di sucré salé bu quotidien def nag commentaire ci wàllu mu ne kii waaw boo xoolee bu baax dañ waxante dëgg Ousmane Sonko ak gaayam ya ñoo nekk ci lu ñuy woowee réalité du pouvoir ndaxte mën nga nekk ci l'opposition di xarab di wax la neex ay boo yegsee ci nguur gi nga fekk ay yeneen réalité ñu laaj ko loolu mooy lan mu ne jël leen cherté la vie new ñu woon ñoom bu ñu yegsee fii en deux mois ñu wàññi prix léegi fu mu toll nii ku nekk gis na ba léegi nii mënuñu ko wàññ naka noonu itam gis ngeen nu ñu rëñee seen bopp foofu c'est la su mën a tong nag dellu nag ci loo xamante ni lu ñuy woowee traque des milliards yoo xamante ni dañ ko dugaloon ci wàllu inondation yi sama naataango yi ne ah 717 milliards yoo xamante ni dañ ko dugaloon ci mbënd mi ci temps président Macky Sall ah boo muyul dañ ciy jàpp ñu bëri sama naataango bi di journal Sud Quotidien ne ah dañuy def audit ci wàllu woyule kii di Ousmane Sonko moom moo wax li nu mel source a ne ah nañu xant dëgg mu toll léegi nii kay gaayu Macky Sall yi ah bu yeboo nañ ñaan nañ ñaan ndaxte ñoom ñëpp koo xamante ni laal na ci xaalis boobu leen boo muyul dañ lay jàpp yóbbu la ci kaso sama naataango ne wax Soleil ne ah am na ay mesures yoo xamante ni jot nañ ko jël ci wàlluwule su ko defee ñu mën a lutter contre mbënd mi sama naataango a vingt de mesures ñaari fukki mesure ak ñaar lañ jot kon ay jël ci wàlluwule ñu wax ci wàllu trafic de faux billets Thiès Kolda sama naataango bi di journal bés bi la journée ah fu mu toll nii ah sama gars yi ñu ngi continuer di def trafic de faux billets 7 milliards de francs CFA jot nañ ko jàpp diggante kon Kolda Thiès wala Ziguinchor sama naataango ne ah kon kon trafic de faux billets yooyu mi ngi jolli ci Sénégal Libération ne ah du trafic de faux billets kese de am na itam trafic de cocaïne trafic de drogue trafic international sa sama naataango bi Libération ne ah am na nag ñoo xamante ni dañ leen jàpp temps yi sama naataango dellu si si wàllu woolee ne réseau la daanaka da doon dem ba Guinée-Bissau ba Gambie jëndi drogue bi dugal ko ci réew mi sama ne police Ocrétis jot na kon filé réseau boobule balaa muy naataango ne kii di doomu Idriss Seck ci la bokk El Hadj Papa Abdoulaye Seck kon doomu Idriss Seck bi dañ koy jàpp mi ngi yoon ci eh, clinique ñu yóbbu ko ci garde à vue ñu jeexal ak sport sama naataango bi di journaliste de quotidien wax nag ci Lamine Camara nen nag ah Lamine Camara temps yi nag mi ngi ci guddi jubët setegul ndaxte dafa am gaañu gaañu ci euh, clubam moom nag ñu ngi xaarandi mu jóge foofu nag fu mu nekk ci France ndax dina dem Galatasaray Juventus wala Chelsea sama naataango ne ah ñu ngi xaarandi de waaye nag euh, club yu mag yu bëri ñu ngi euh, kan xool naka lañuy ñuy jëndee kii di Lamine Camara ñu jeexal ak sunu làmb Gris Bordeaux Ama Baldé guy gi adafas Fass Zoss Liss sama naataango ne ah Baye Ndiaye moo organisé kon méga face to face boobule te dina am ci samedi ji bu 20